en tant que jeune ak képp koo xam ne tamit xamu xamu xamuguñu ko ñu ñëw ñu collabore en tant que jeune mu liggéey parce que je je me dis que dama ñëw gis fi ay yenn euh, jikko yi nga xam ni ci musique bi dafay yàq musique euh, je pense que tey euh, ñi nga xam ne tey mooy mbër sax comprendre neen booloo mais dama ñëw gis ay divergence ay concurrence yoo xam ni xamuñu lu mu tudd man lépp lu may def su mu ko gëmul lu mu ko def lu may dugg dama koy gëm dama ciy dugg ba may ñëw nag dañ ma préparé ma préparé suma bopp ñëw ma rek par hasard te li ma bëggoon moo ñu jéem a changer développer la culture sunu dëkk ndax ñi fi nekkoon ba léegi muy ténor yi ba léegi booy xool ñoo fi ne amul benn changement te dëkk boo laal ci Afrique muy Mali Nigéria yeneen continent yi da ngay gis seen musique di développé wu. man nag je me dis que pourquoi pas en tant que jeune ambition rek la du du alal du dara mais ñu collaborer jéem a liggéey jéem a nag arrêter les concurrents yi nga xam ne amul njëriñ amul benn du ñu yóbbu fenn. te ñun Sénégal dañoo doon pays pauvre il faut que ñu comprendre loolu xam nga donc da ngay gis un jeune ba nga xam ne tey aujourd'hui tey day am métier bu baax mais day bëgg a dem Europe lay gis lu loo ko fay fay fay fay fay du doy parce que lépp fii social la donc man ni naa jéem a ñibbisi parce que nit amul lu sa dëkk te sama famille fii lañ nekk samay mbokk fi lañ nekk samay ami d'enfance donc je me suis dit pourquoi ñëw tamit ma sacrifié wu na am na ñoo xam ñoo ngi sacrifié pour le Sénégal ah, di dem di dee nekk ci guerre bi di garder ay frontières pendant des heures donc pourquoi pas en tant que Sénégalais man ni nag naa ñibbi sama dëkk loo am am am am am alal mais alal pour man lii may alal ñëw sa dëkk daf dara mais nag may ñaan ak jeunes yëpp ak képp ku nekk ci culture sénégalaise ñu change un peu orienté wu un peu sunu formaté waat sunu cerveau yi ndax saa me fait très mal en tant que des jeunes ay wax jàppal diw bayal diw far fii far faa amuñu benn sens. xam donc pour ñu mën a exporter la musique ba pare faire la musique man je me dis que depuis certaines années yi passé yëpp musique bi xamul muy ndur xam nga ñun doon noon man voilà xale la mais ba mu nekkee xale bu ndaw doon noon waxtaan ci musicien bi moo ay. xoolal Papis Konaté xoolal expérience bi mu am xoolal lu mu dugal fii xoolal Dembel xoolal Habib Faye ndaw si yàlla yàlla na ko yàlla xaaree na donc ñun yooyu moo doon suñu débat mais léegi débat bi dafa nan autrement donc je vois tellement de jeunes yi nga xam ne dañoo talentueux xam nga ils ont tout ay exporter kon nag su ma ñëwee pour ñu collaborer loolu moo ma indi mais man concurrent induma ay defante induma duma ma ragal nag. xama ñaatal laa dëkk laa juddoo laa yaroo laa màggee du ma nag ay dëkkoo fi ay Europe nga nekkoon loolu amul xama ñu ñëpp ay Sénégal leen salaam mi toog fi tey su ma kilifa la moo ma moo ma yar kon nag su ma euh, mënuma wax nag comme ni ma ko waxee rek mais j'essaie de vous faire comprendre que ni liggéey moo ñor liggéey daf ay événement montrer ko quoi la culture esporté ko te gëm naa ni jeunes yu bëri mun nañ si gis seen bopp ba mën a yor seen kër tamit yor seen famille normal dignement que ñuy topp ci ay loo xam ni ay wax bu dul jeex la donc on aime trop discuter palabrer pour rien donc su man ak kii juste expérience du du damaa xam lépp mais ah ci li ma jàng ci Europe ak expérience bi mu am comme ni naan ku tukki soo amul alal li nga am expérience mm. donc euh, sama jaar-jaar gëm naa ne tey sénégalais en tant que sénégalais. en tant que toute modestie euh, sama biographe euh, ci culture gëm naa ni amul kenn kenn ci Sénégal bu mu ko ci ëpple ci nu mu rek ak artiste muy international ak ku mënta doon nañu bàyyi dëgër bopp te di déglu nit ki su la conseillé rek vision rek la la conseillé mais dalay du dalay conseillé pour di la wan ne maa gën a xam ñun nag étranger bi di ñëw extérieur muy tubaab beeg wala beneen xeet moom la ñu gën a respecté en tant que sénégalais man damay gis ni lool c'est malheureux te c'est vraiment dommage que dañoo war gëmmante suñu bopp gëmmante suñu bopp jàppale na suñu jàppante rek lu ñu bëgg di leen am donc foofu lay mën a yem en attendant di leen wan ni euh, on avait prévu benn concert le 7 août avec Wally Seck si Rufisque pour démarrer woon yeneen date ci national bi comme que actuellement nag ak période Covid bi donc alal neex na waaye santé ko gën wérgu yaram foog naa ni amul prix donc on s'est dit que vraiment sagement nag ah du gouverneur du préfet du kenn même tout à l'heure waa waa Rufisque woo bi naan ma lu tax ngeen annulé na ñun vraiment dañoo bëggoon concert bi mais ma ne ko non ñun waxtaan nañ suñu biir gis nañ ñu annulé ko moo gën donc ànd ak seeg yeneen artistes pour juste mettre des scènes yi nga xam ne tey ñun suñu projet définitif mooy dem ba di créer ay festival ndax man loolu laa xam je suis plutôt événementiel que même dans la production kon nag nañ jàpp ñu gën a xamante gën ngeen gën a xam label bi liggéeyam ak option lan la bu ñu naxante